salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi bu lépp jàllee ñu félicité Lions yi xam ne nii la ko yàlla bëggee woon ñu nangu ndogalu yàlla félicité leen ñaari match yii di ñëw nag danoo war a gagné far force danoo war a gagné far force Aliou Bounama Rasta Cissé Aliou Bounama Rasta Cissé da nga dëgër gat da nga dëgër gat man damaa xamul man lu tax nga dëgër gat Aliou Cissé lan moo tax yow say premier remplaçant Iliman Ndiaye na waroon a doon ak Pathé bu Boulaye ja ba mu génnee Iliman Ndiaye nga waroon a dugal Iliman Ndiaye moom warul woon a toog ci warul woon a toog ci banc bi ñaar ñoo ñoo waroon a nekk première premier remplaçant pas Bamba Dieng pas Bamba Dieng beneen bi ci tegu mooy gars yi Sadio Mané manqué nañu nag am na ku ko bind ci commentaire yi léegi Sadio Mané équipe du Sénégal sans Sadio Mané mi ngi mel ne yaasa boo xam ne nii amul soble Sadio Mané manqué nañu de Sadio Mané bu nekkoon ci biir sëb benn bii lu mu tuuti tuuti dinañ ko am. lu mu tuuti tuuti tuuti dinañ am benn bi Sadio Mané manqué nañu de sénégalais moo soxor senegale yi danoo soxor sëriñ yi ku ne di xëcc jëmale sa boor ñii di liggéeyante ñii naan maa yor équipe bi maay joxe bi fii ku dul yàlla newoo fi ak yonent bi dimbali leen ñu sëriñ bu ci ti wax dinaa teppi sa data ndey sëriñ bu ci génnati wax dinaa jël cerno Moulaye Sow dugal ko sa lëfal ndey mu naan kiti sa yaa bolo yo saa yaa nduree tee tee sama si sama ruusi sa biir lëfal ndey bu leen ñu yab xamu leen da jaw dayam su ngeen xamoon dara jàpp tubaab bi tubaab neexut a jàpp koo xam ne ni yow boo dayee mu day moom ay musuwaar lay jël fobbee ko tuun gi bés mu dem yow ngay jël ay satala di laabu ba set ba ndox mi dañ ba day dañuy dañ laabuwaat ndox ba mu tooy nga set wecc di julli ñëlee du julli yaa ngi dégg nekkuñu ci yooyu bu ndayee ay musuwaar la ni laaboo nga ne mën ngi leen a jàpp ku jóg di duul naan mën naa indi kub gis naa bii bi gis naa ku fi waxati gis naa bii bi rek ma jël bii bi rek ko ndeyam quoi